au niveau de la République des valeurs la position est que le principe mooy nit ñi libre nit ñi participer élection yi libre nit ñi di participer. Mmh. mais en même temps qu'il y ait de la responsabilité man je serais très gêné euh, saa su un homme politique amee maille à partir avec les deniers publics. ba ouais. mu avéré ñu trouver des. compromis des mm. arrangements entre nous pour bàyyi ko ba pare doomu baadoole bi ba nga xam ne dafa juum moom tamit bëggoon rectifier wu mm-hmm. ñu bàyyi ko ci kaso bi d'ailleurs sax avec une longue détention boo xam ne jugé wuñ ko mm-hmm. donc très honnêtement ñun république des valeur loolu def ñuy gêner et par conséquent euh, la participation oui mais ñun dañu mos di contre ne mm-hmm. nañ amnistier des faits nga xam ne dañuy wax de telle période à telle période képp ku mos a def lii ci politiciens yi bàyyal baal nañ la loolu ñun dañ jàpp ne xeluwul xel nanguwul loolu nga jàkkaarloog sénégalais yi mhm. ni ñun baalante nañ suñu biir mais yeneen askan wi médecin bi doon fal bu doon faj nit juum def faux diagnostic ñu tëj ko ci kooku baaluñ ko mhm. te yàlla xam na ne kooku amuloon intention wu gaañ kooku nag c'est une erreur da ci doon liggéey alors pourquoi ki am intention yàq deniers publics yi pour sa jouissance personnelle ñu war ko mun a baal loolu république des valeurs moom mënu si ànd